ñu bëgg ñu war a xool nan lañ ko war a mën a waxtaanee xam nga ba jéem a trouver consensus boobu boobu noonu tamit ñu ngi doon wax ci affaire séddale denrées alimentaires yi mais seetlu nañ ne ñu ko waxee ba léegi gisaguñu dara ko waaw xamuñu nag affaire yi xam nga fan la tegee ak nan lañ war a mën a def tamit xam nga ah, ba indi suñu xalaat par rapport ak situation bi nu mu demee noonu. waaw comme li nga wax rek boo xoolee bon on a beaucoup de choses à se débattre quoi parce que pratiquement boo xoolee. Euh, da ngay xamante ni c'est un peu contradictoire man auparavant man je défendais xam nga l'état par rapport à la situation man maa doon wax que ne instant yi situation yi ñu toll xam nga dañoo war a tëj jumaa yi war a tëj mais après après mûre réflexion da ngay xamante ne y a un paradoxe quoi xam nga da ngay xamante ne dafa am àndul le fait que ni jumaa euh, le fait que ni marché ñu bàyyi marché yi boobu ba léegi ñuy tijji. nga xam ne ne marché yi amul benn benn benn benn organisation boo xamante ne am na si marché yi ah, marché marché amul ko mën xam nga amul dara loo xamante ne moom mu mën a organiser marché man nag su may dem marché dinaan damay kenn du ma ne fii laay kenn du ma ne fii laay jaar fii kenn du ma ne fii te marché yi boobu ba léegi mm-hmm. boo xoolee jumaa yi boobu ba léegi ñu ngi ko tëj mm-hmm. te ñuy recevoir si monde marché yi duñ ko recevoir si monde te marché amul organisation donc da ngay xamante ne y a une contradiction dafa am paradoxe par rapport à ça mm-hmm. donc boo xalaatee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay xamante ne amul raison amul benn benn benn raison boo xamante ne ni war na mun a tax jumaa yi boobu léegi ñu tëj ko. ma ma yokkal la sax parce que seetlu nañ tamit ne marché dañu dañu wàññi jours yi muy ibbi ko mm. trois jour lay ibbi par semaine mais instant bi si si trois jours yooyu muy tijji. boo bu la yàlla nattoo ba nga dem marché day mel ni dañ ne suba la tabaski te gars rassemblement bi lañ doon bañ mhm. ah, rassemblement bi ñu doon bañ ci kii kii kii marché yi mais dafa mel ni mesure yi ñu jël pour éviter rassemblement yi si marché bi dafa gën a empirer rassemblement yi mais man beneen facteur économique doguma la beneen facteur économique bi ma ciy gis mooy dañuy tëj marché yi bàyyi océan yeeg ñoom seen ñu ubbeeku maanaam dañuy buur nit ñi pour ñu dem si océan wala gis-gis la quoi damay xool rek parce que man jëpp facteur économique laa xool quoi économie Sénégal quoi yow bu yow da yor marché si sa biir koñ boo bokkul da yor da jaay lekk bu ak alimentaire si sa koñ bu mu mun di toll c'est pas grave mais marché yi en général ñi nga xamante ne ni dañoo am cantine li ñu naan les marchés yooyu ci jëm boppam lañ tëj Auchan yi xam nga bu dee dafa nekk si biir marché bi day tëj dans ce mais bu dee Auchan bi si koñ la nekk comme ni mu demee du tëj. non mais Auchan ni ñu bi dañ ko defal fii a ko doon jiiroo. waaw mais mais comme xam nga marché la ñu. pàq yi jiw loolu du problème xam man fan laay waxee xaaral pour réguler la def wala pour wax leen dëgg dëgg dëgg parce ñu ngi naan ni Océan lu muy jël lu muy am ci économie Sénégal maanaam on parle des marchés. Euh, comprendre nga instant bi instant nañ gën a concentré wu non comprendre naa li muy wax non comprendre dama lay kii rek après nga continuer sa parole foofu man damay damay continuer c'est man xam nga laa bëgg a wax noonu comme wàllu ouverture marché wala loolu loolu leneen la quoi mm. mais dama ne ñun dañuy wax si wàllu côté surpeuplement des des marchés mm. par rapport ak jumaa ni nga xamante ne noonu lay mel te gis nga organisation bi nga xamante ne moo war a mun a am si juma ndax juma lu mu dee dee dee dee dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy organiser juma boo dem dañ naan la kii mooy président juma bi kii mooy kii kii mooy lii donc da ngay xool ne y a au niveau des mosquées mm. donc dans ce cas ñu ubbi li nga xamante ne moom mooy juma yi li ñu ubbi bàyyi marché yi ñi xamante ne ñoom ñooy fonctionner boobu ba léegi isi a dégg juma yi boobu ba léegi ñu ngi bëgg a tijji mënuñu tijji donc day dem nga xamante ne day amener à ce que population si jëm boppam parce que gars yi gis nga seen am mooy commencé mooy commencé di faible gars yi dañuy dem ba nga xamante ne dañuy bugg a jaamu yàlla hmm. la nga xamante ne tàmmuñu loolu seen kër seen seen kër seen kër seen kër te ak mais lan moo gën a sell comme Touba exemple bu ñu joxee dem julli ji di julli kii toog un mètre un mètre distance distance boobu noonu ñuy wax distance un bi loolu mun na xew si jumaa yi gars yi mun nañ ko organiser mais pourquoi pourquoi ñu daganal essayé déggul ndax ibbi marché ba pare bëgg a tëj jumaa yi man auparavant je défendais dama ne non non dañoo war a tëj lépp man boo xoolee sama idée bi boobu ba léegi dañoo war a tëj lépp mais le fait que ni marché yi continuer di tijji surpeuplement bi di si am ba léegi donc loolu du raison boo xoolee rek wallu nit rek da ngay xamante ne ne du yoon ñuy tëj jumaa yi marché yi continuer di fonctionner boobu ba léegi. moom laa wax man je suis pas du tout man man lu ma ci lu ma jàpp rek mooy luñ naroon maanaam suñu ubbee fii jumaa yi. luñ doon luñ doon bañ ci marché bi ba mu am moom moom mooy mujjaar amaat ci ci ci jumaa yi c'est que lépp la ñu war a def moom mooy maanaam avant nga naan da ngay jël mesure naa da ngay ubbi jumaa yi da nga war a ci a teg ay mesures yoo xamante mesure yu norme yu baax yoo xamante bés boo xaasee ba um, ubbi rek gars yi il faut ñu respecté ko nombre bi respecté mesures yoo xamante ne maanaam da nga war a jël ay gel wala da nga war a sol ay masque yooyu yëpp da nga ko war a régler avant nga ci dugg bés boo xamee ne ba ba boo ci ko réglé wul ba dugg ci problème rek nga indiwaat ndaxte marché yaa nga nii nii dañoo xam ne dañuy tëj marché dañu tëj marché lundi lundi ñu ubbi mercredi ñu ubbi mais lan lañ def dañoo ubbi rek gars yi tëb tëb tëb dugg ci biir gars yi marché bi fees del lu ñu doon bañ mu am léegi kon c'est-à-dire euh, bi ñu defalee nii moom moom ma baaxul léegi balaa ñuy ubbi jumaa yi nañu waxtaan ak ñoo xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo doon ñoom ñoo nekk ci jumaa yi mesures yu yu ñu war a jël ñan la ñan ñoo ko war a jël imaam yi ñoo ñu consulter imaam yi ñu consulter les xalif généraux expliquer leen problème bi nan la dem ndax ñoom soo leen impliqué wu ci kii bi rek soo jëlee mesure boo xamante ne ñoom day day dal seen kaw à la fin ñoom duñ mën a comprendre système bi ni ñu koy ni ñu koy doxalee. maanaam boo xoolee affaire bi dafay mel ni population bi ñeen ñi ñenn ci population bi dem nañ ba ñoom dafa mel ni jàppuñu sax ne affaire bi dañ koy def pour xeex propagation feebar bi mais dafa mel ni dañ leen di xeex ci seen wàllu religion. comprendre parce que mënuñu comprendre benn affaire côté organisation ak ak ak distanciation sociale yi gars yi dañ koy respecté si yenn si si yenn kii xam nga mais mënoo comprendre nga dëkk bu mel ni Sénégal nit kuy julli si biir këram nit kuy julli quoi si biir këram ñu fekk ko foofu xam nga kereel ko ay problème dóor ko yóbbu ko police

les euh, les 1 mètre 50 barrière dañu leen wax ne yow war nga koo def bés boo ko respecté là yow mun nañ mun nañ d'accord ne yow yow lu mu bon sax mun nañ la accepter le bénéfice du doute mais yow bés boo demee yow benn instant yow respecté woo les mesures yow yaa ngi dem ba pare euh, dugg ci nekk ci sa biir kër bankoloo di julli affaire yooyu à la fin yow soo euh, soo kenn su fa malade yow yéen ci kër gi yëpp ñu ñu may malade. saa yi saa yi ñun Sénégal dañu xam ñoo gis nga su population sénégalaise bi nu muy dundee. société bi da ngay nit ki balaa ngay jël mesure bu mu munti doon ak lu mu munti doon da koy natt si sa si sa si sa si sa société seen si sa dundinu société nga koy natt comprendre li mu la bëgg wax xas nañ ba dugal nit ci biir kër yi ay distanciation un mètre si biir kër gi loolu du kër yëpp nga ko mën a def du kër yëpp nga ko mën a appliquer am na ñoo xamante ne seen kër du ñu am sax espace boo xamante ne ni ñaari nit mën nañ fa taxaw julli normalement kenn day julli xaar keneen julli bu loolu yëpp weesoo gis nga ni am na ñoo xamante ne ay 4 personnes 5 ñooy bokk chambre bi ñuy fanaan chambre 3 mètres sur 6 sur 2 mètres 50 comprendre la bëgg wax mun nga ne gars dugg leen seen biir kër waa kër gi moom ah, ñun ni ñuy dundee bokk di teg ndab xam nga di bokk di añ xam nga bokk potu naan comprendre li mu la bëgg wax loolu yooyu yooyu yëpp daf daf man dafa am si suñu dafa am fii quoi dafa am ñoo xamante ne maanaam mënuñu ñàkk dund loolu looloo tax ma ne la nag condition yi nekkee maanaam maanaam condition yi ñu nekkee xam nga loolu mënul ñàkk ñooñu tey jii mënoo leen tere julli ci seen biir kër yi mënoo leen respecté loo affaire yooyu xam nga yow lan nga mën a def lieu public yi nga ne yow par exemple tey yow jumaa ja boo fay dem lii quoi lii lii lii lii mais yow mënoo mën maanaam mënoo mënoo mënoo jël mënoo maanaam mënoo yow imaam bi nga fekk si këram jàpp ko toroxal ko yóbbu ko yóbbu ko police xam nga sous prétexte ne respecté wul mesure barrière yi si këram cest à loolu xel nanguwu ko quoi. foog ma interpeller la foofu parce que man loolu laa wax dama ne loolu. loolu moom baaji foog nga gëstu ko bu baax ba xam nag loolu noonu la demee wala deme parce que état bi gars yi dofee wuñu noonu est-ce que ay déggum la mënuñu ñëw comme par exemple am kenn koo xamante ne dafa organiser parce que benn affaire gars yi regroupement la ñuy bañ yow boo organiser dafa mel ni comme man Ablaye rek est-ce que ay déggum la man ma jël juma jour juma man ma imaam la est ay dégg la ma organiser julli juma sama biir kër mbedd bi fees ma jiite leen est-ce que ay dégg la donc dans ce cas yow ne les mesures yi nga xamante ne moom la état bi joxe comprendre nga donc dans ce cas yow nekkatoo dans le cadre privé mais yow yaa ngi dugg léegi dans le cadre public mm-hmm. est-ce que ay dégg nga dafa mel ni jumaa nga dem rek parce que jumaa bi lan la imaam mooy jiite ñëpp nekk ci biti yow nga woote nga ne kaa la ñuy julli jumaa ci biti si ay dégg nga gis man fan laay waxee comme si sànq El Hadj mu waxee gis nga état bi comme li ngay wax sànq gis nga dañoo mayul ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum jumaa yi li nga xamante ne ni moom mooy bi nga xamante ne moom moo si war parce que gars yi boo xoolee depuis boobu ba léegi ñu tëj jumaa yi ah amul benn benn benn benn yoon yoo xamante ne ni jëm nañ proposé sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum ñu jéem ay ay organisation defee leen nii defee leen nii defee leen na dans ce cas bu dee def nañ ko jumaay bañ ko respecté ñu xamante ne lii mënul antu ñu tëj ko si ay déggum la mais ñu jéemuñu orgi ñu utal gars yi benn genre organisation boo xamante ne ni jumaay nañ doxee nii nañ doxee nii jéem a xool nag loolu ça va fonctionner ou mais dañoo jékki-jékki rek tëj jëpp boobu ba léegi mu tëj jëpp boobu ba léegi mu tëj ñu gis ne ni ay ay activités yoo xamante ne moom mooy gën a fees ni mu ngi fi ba léegi di fonctionner te loolu juma organiser jumaa moom moo gën a yomb organiser loolu man foofu laa waxee moo tax instant yi ni jumaa yi dañ ko war a tijji mais mais comme wàllum wàllum kooku nga wax euh, imam mu ñu jàpp ko nag da doon julli biir këram mais bu defee loo xamante ne respecté wul norme yi nga xamante ne état moom moom moom la teg donc dans ce cas il normal que à ce ñu dem jëli ko mais loolu d' man xam nga ne ma gëstu affaire bi man d' lu ma si doon jotee gëstu waa ji rëbës la dëkk comprendre la waa ji comme suñu kër yi këru famille la dëkk comme suñu kër yi te kër bi jumaa bi mu yor si biir këram la nekk maanaam dafa tabax jàkk si biir këram heure julli jot na mu dajale famille famille yooyu nekk si biir kër gi gars yi di julli ci foofu ñu boole leen ba leen boole ñu ne bi ne leen bés bu ñuy julli woo ma téléphone nga wax ma moment bi ñuy julli comprendre moment bi ñuy julli lañ leen fa fekk ñu jël leen yóbbu leen ñooñu seen seen biir kër lañ nekk di julli woote wuñu julli jumaa woote julli dara seen biir kër la ñu nekk di julli seen julli seen famille lañ ay famille yoo xamante ne mooy loolu. ñu xam na man ñun d'accord nañ ci loolu. xam na rassemblement saa yu am rek rassemblement bi dañ ko war dañ ko war a teg ci ay normes yu leer maanaam dañoo war a respecter les mesures de barrière yoo xamante ne ne état yi moom moo ko dicté loolu moom mooy loolu moom mooy essentiel bi léegi bés boo demee ba ñoom ñu constaté que yow yow rassemblement bi nga con bi nga dugal sa biir kër rassemblement boobu noonu am na ay am na ay problème wala yow respecté woo mesure yooyu la yow yow sa bopp yaa yaay mettre en danger sa njaboot mais yow te yaa ngi mettre en danger aussi la population du Sénégal ndax su boobaa sa njaboot bés bu ñu contaminé si koñ boo mooy contaminé wu population yi moom mooy contaminé wu donc par conséquent il est préférable suñu jël mesure yu jëm ci jàkka ji wala ci jumaa yi ñu xool yan yan jumaa ñoom ñoom tamit ñam jumaa yoo xamante ne ne jege nañ wala war nañ dañuy am mbooloo bu bari yan yan mesure lañ fa war a mun a teg pour jumaa yooyu noonu ñu mun leen encadrer waxtaan ak imaam ya fa nekk. parce que koñ koñ gu nekk koñ koñ bu ne am na benn jumaa bu mag boo xamante ne mu fa te jumaa jooju tamit day rassembler ay nit ñu bari. jumaa jooju dañu war a xool nan lañ mun a canaliser pour permettre jumaa jooju mu nekk dans de bonnes conditions mu jumaa ji tamit mun a am yoo xamante ni dinañ fi mun a jullee tout en respectant les mesures barrières mais su bés bu ñu demee ba bés bu ñu ne jàkk jàng ni ku mun a nodd na nodd su boobaa juban yëpp dañuy fees dell te xam nga ne xel ne Sénégal moom fu mu toll nii lu bees lay gis parce que mesure bu xase bu ubbeeku su gars yi commencé dugg ci jumaa yi day fees dell te loolu loolu lañ doon bañ ci marché yi moom mooy nar a amaat ci jumaa yi par a doon mesure mesure leer yu yoo xamante ne ne dañ koo dañ ko déggoo ak ay ay imam imam ak déggoo ak ak xalif généraux yi parce que kii xalif général de des mourides moom ba mu tegee mesure am bi moom leer na dafa ne képp koo xamante ne moom mooy liggéey ci jumaa jooju noonu yow am nga droit di julli foofu noonu ci jumaa ji ba pare nga respecter les mesures ba pare nga utaale ay gel du du ko di ko di ko di ko yore yoraa di ko utiliser su ko defee yow da nga respecter loolu mais loolu est-ce que loolu mën nañ ko respecter ci euh, yeneen jumaa yi nekk Dakar est-ce que mën nañ ko respecter yeneen jumaa yi nekk par conséquent da war a xool mesure li nga war a dafa war a méngoo ak yow sa jamono méngoo ak tamit euh, jumaa yi yu nekk ci koñ ba loolu moom mooy l'essentiel état bi si jëm boppam déggum la day teg waxtaan ak ñi nga xamante ne parce que gis nga imaam yi ngay gis nii dañoo may association am lépp isient déggum la donc l' état doit parler avec les associations des imams comprendre bu ñu teglee bu ñu état bi wax la nan nan lañ bëgg ñi nga xam nan lañ bëgg organiser les choses jumaa yi ñu jéem a def le maximum ba nga xamante ne état bi ni mu bëggee ñu defee ko ñoom ñu defee ko noonu mais dans ce cas état moom bu ko de ko defee moom day nekk genre superviseur rek si les mosquées ne respectent pas les choses mu tëjaat ko loolu c'est simple mais xam nga instant fan lañ toll hmm? ñu ibbil leen wax leen organisation bi nii lay demee. ba pare di leen seetaan xool nag dinañ ko def wala ko def. lu ma jaaxal lu ma jaaxal excuse-moi excuse-moi s'il te plaît non la question ko def wala duñ ko def la question naa ne naa ne mooy superviser les choses. day ibbi les mosquées nga wax la ne organisation bi nii la war a demee comme sànq li ngay wax mais instant bi état bi dafa maylu chance jumaa yi pour pour ñu xool nag ñoom ils vont respecter les mesures barrières ou pas mais donc instant yi ñu toll nii moom laa tax état bi si jëm boppam dafa dafa war a teg li nga xamante ne moom mooy organisation ne jumaa yi dans à partir d'aujourd'hui nii laa bëgg muy defee nii laa bëgg ñuy doxee nii laa bëgg ñu koy defee mesure bi nii lay demee balaa ñëw dugg jumaa bu nekk na am lii jumaa bu nekk na def lii mu lancé ko ñu xool nag et jumaa bi dina ko jumaa yi ko respecté wala duñ ko respecté jumaa yi buñ ko respecté wul mu revenir à sa décision tëjaat les choses man loolu laa wax mais fi ñu toll nii nii nii moom heure jumaa dafa war a tijji depuis lépp lu fi am état moo jël ay mesures moo ko moo ko dicté. parce que c'est l'État waaw baa ma ñëw mais depuis boobu ba léegi depuis le 2 mars ba léegi on voit que ni lépp lu mu jëm set amul dara lu ci baax rien d'organisé bien organisé rien alors que l'État a tous les moyens amul dara lu mu fi décidé lu baax sol leen masque te amuñu masque bëri na quoi li soo koy soo wax li soo koy li liste bi dafa gudd. dañ ngeen jumaa yi bàyyi euh, marché yi corona bi gën a bëri dem na si bëri information bi génn lan la boo jëlee dix mille nit mille cinq cent yi dañu am positif mille cinq cent léegi si tu prends quinze millions de personnes quinze sur quinze millions ça te fait combien deux millions cinq non soo ko calculer du deux millions su fekkee te dix mille cent sont positifs sur millions il combien de positifs si c'était pas si c'est pas deux millions ou deux millions cinq mais léegi la loolu moo ko indi tëjum jumaa bi wala ubbi ubbeekum marché bi wala ubbeekum bii di ñëw si ubbeekum xale yi dem école France moom mu ñuy toppandoo ñun moom moo la ñuy toppandoo France mu ngi xalaat moom année blanche ah. ñun suñu lu ñu wax ñu naan suñu état yi suñu état yi dañu aay dañu aay mais bu depuis le corona bi muy ñëw waroon tëj tëjuñu ba tey jii nii jëluñu benn décision bu baax. xoolal dem nañ convoqué benn xalifa généraux ndax lan imam te pourtant ñoom balaa ñuy julli ils ont parlé au préfet jël nañ seen matukaay mais teewul bu ñu jullee ba pare la ça s'est passé fii à Léona dañ leen convoqué pour lan léegi nag ma ne lii tout à l'heure léegi état bi day def def na buum instant bi état bi dafa nekk ci parce que il sent que ça va imploser wax ma la exploser ça va imploser de l'intérieur pour éviter cela lan lay def day yëkkatiwaat couvre weer koor bi peut-être moo tax ma la koy may c'est-à-dire nee naa la depuis le début il faut pas subir non defal naa ngi il faut pas subir ba léegi mënuñu la wax corona bi ni ngay def bu ne dañ naa la mesure barrière mesure barrière mesure barrière mesure barrière d'accord mais mesure barrière masque si la bokk tey jii boo amee corona wala man ma am corona nga sol masque sol say gants yaa xam sol say yaa xam li mais c'est à ta disposition mën na dugg dund si yow ba ba rey la wala ba ba mu bëgg a wér te doo ko wàll kenn parce que ci yow mi sa bopp da nga mesurer bu bare mais ñëpp loolu ñëpp bu ñu mënee am loolu noonu masque ak whatever gel ak yooyu mais état mënul def loolu li gën a simple ñëpp non dafa nang dafa nang nu sommes peut-être 15 millions disons ku nekk am masque peut-être nga am 3 masques yaa xam 4 masques yi nga xamante ne mën nga ko alterner si jour bi. wala chaque jour non dafa nang rek te ça coûte pas cher l'état peut mooy premier acte bi nga xamante ne moo war a am ku nekk mën a protéger wu mutuellement yow nga sol say masque kii sol masque mën ngeen nekk liggéey mën ngeen job mu am corona keneen am corona mais yow lay yem non c'est-à-dire déedéet dafa am yi nga xamante ni dafa naa daa am yi nga xamante ni jiitu boobaa doo ngay def leneen loo xamante ne lu doy waar ngay def loolu doy waar ngay def man xam ne ñun ñu xam ne ñun lan la ñuy wax ñun maanaam maanaam dafa war a waxtaan ak li les les chefs religieux ñoo xamante ne ni ñu mën a discuter ci benn norme boo xamante ne mën nañ ko mën a appliquer mais bés bu état bi joxe benn décision boo xamante ne ne dañuy nii la ñuy doxalee ak nii la war a defee ci jumaay su boobaa cacophonie mooy am par conséquent nag il est préférable comme nu mu nu mu ko waxee ba ba euh, xalif général euh, bu Mouride ba mu ko déggee nu nu nu mu réagir il a réagi en en homme sage en sachant que tout en sachant que nu ni ñu ko ni ñu ko waxee nii nii su am na nu mu xamante ne bés bu ko defee dina dina indi dina indi euh, révolution dina benn problème maanaam nit ñi dañuy wax ne ne di d'accord ca conseil bu moom mu xalaat ne pourquoi mu defar benn ay nit ñoo xamante ne ñooy nekk foofu ñoom ñoo fay julli ñoom ñoo fay lu lu moom mooy stratégie am stratégie am boobu nag moom moo waroon law ci ci jumaa yëpp mais lawul ci jumaa yëpp. léegi nag par conséquent ñun nan la ñuy war a def état bii nii fu ñu toll nii gars yi bëgg nañ julli mënuñ julli xam nañ ne kaa yi jumaa yi kiiwuñ ko euh, jumaa yi nekkuñ nekkuñ ay ñu euh, toti situation xamante ne ñoom ñoom ñoo provoqué kii bi euh, ñoom ñoo provoqué virus bi mu mu law léegi par conséquent état bi nan la war a def dafa war a waxtaan ak kii ñu jël ay mesures pour ubbi jumaa yi progressivement mais bés bu ñu ubbee jumaa yi de façon définitive ñu ubbi ko bëm su boobaa problème lay am. Ah, eh, loolu la xam nga lan laa la siy wax. dama siy profité waale sax pour waxaale ci Ablaye Mbaye tamit benn affaire gis nga jumaa yi en temps yow yàgg nga julli yàgg nañ daje jumaa ji nañ daje jumaa en temps normal yi laa la wax ñaari sàppe yi du fees vendredi bi mooy julli vendredi ba vendredi la booloo la jumaa di am mbooloo mais en temps normal jumaa bi laa la ñaari sàppe yi du fa fees comprendre li ma la bëgg wax. et puis xalif général des mourides xalif général des mourides la quoi xam nga moo ëpp doole sax état bi comprendre la moyens yi muy am pour organiser yenn affaires yi peut-être ñeneen ñi amuñu ko comprendre lim la bu la léegi beneen affaire bi may wax mooy su fekkente ne état bi jël na ay décision sans pour autant que mu waxtaan ak kilifa diine si wàllu religion te tëj naa jumaa te waxtaanuloo kilifa diine est-ce que am na sens boo demee bay tijji nga door a waxtaan. beneen affaire bi beneen affaire bi mooy lan xam nga beneen affaire bi mooy lan. Papis excuse-moi maanaam non dafa am lu may bañ a fàtte après. nga confirmer li nga wax parce que dañu dañu jël dañu jël dañu dafa état bi dafa jël décision woo opposition. waaw état bi lépp lu muy def daf koy def ba pare doog woote. léegi par rapport ak li nga wax nii ne état bi et ce que jël décision ba pare doog wax ak kilifa diine est-ce que loolu moo am parce que li ñu gis lépp moom day jël décider ba pare doog a yëgle. xaw ma noonu lañ koy waxee en wolof ah. léegi beneen bi mooy bi Abdoulaye Mbaye doon wax tamit xam nga loolu tamit maanaam suñu ibbee jumaa yi par exemple ñu ibbi jumaa yëpp jumaa xaar yàlla ñëw ñoom ñëpp ñu mbooloo dem dugg si biir jumaam respecté wuñu mesure barrière affaire yooyu est-ce loolu raison la pour ñu tëj jumaa yëpp jumaa bu ko ci respecté wul jumaa boobu la ñuy la ñuy sanctionné ñoom ñoo war a sanctionné jumaa boobu tëj jumaa ji comprendre organiser waat ko attention état état kii lay doxee état état mu moo état moom moo moom moo garanti suñu sécurité ñun ñëpp waaw par conséquent nag moom moom du si ay certitude moom dafa war a moom dafa lu lu mépp lu mu war a def dafa war a doon loo xamante ne lu leer lu clair loo xamante ne ne moom dafa war a sóoraale ëllëg waaw par bés boo ko bàyyee bés boo bàyyee gars yi ñu dugg foofu noonu ñoom ñëpp ñu respecté wuñ ko léegi léegi yow nga bëgg a sanctionné sanctionné jumaa bii nii te yow waroon nga sanctionné yeneen jumaa yoo xamante ne kii am ñoom li ñuy def nii ñoom moom la ñuy def su boobaa yow da ngay poser problème. Ah, problème dama ne la ah, dama ne bu fekkente ne tijji nañ jumaa yëpp jumaa yi nekk Dakar yëpp ñu ngi respecté mesure barrière yi ñu ngi raxasu balaa ñoo jug dugg respecté di 1 mètre yi sol masque si biir jumaa yi nekk Grand Yoff yëpp jumaa xaar yàlla kese moo ko respecté wu suñuy sanctionné ñu tëj jumaa yëpp jumaa xaar yàlla bi dañu war a sanctionné ba ñoom ñu mën a organise wu ñu soog ko ibbiwaat xam nga parce que état bi dafa war a accompagner gars yi si seen wàllu lépp état bi dafa leen war di accompagner xam nga li ma la dimbali leen si organisation xam nga mais warul jël ay mesures yoo xamante ne tëj définitivement pendant ce temps xam nga leneen yaa ngi waxat leneen lu gën a garaaw yaa ngi waxat da ngay ibbi école yi la dégg mais yow xale bi mun nga sàmm kaaraangeem ci biir école bi mais est-ce que parents yëpp am nañ temps wala am nañu moyen yeew jël seen doom. yóbbu ko ba école bu ñu wàccee ñu dem jëliwaat leen école yow ba nga juddoo ba léegi sa pap mosulaa yóbbu école sa yaay mosulaa yóbbu école yaa yóbbu sa bopp la nga doon def ci yoon bi ñoom xamuñu oto amatu. yow nga ne kalandoo yi du ñu daw ah nangu yenn taxi yi du ñu daw lii nii nii nii nii transport bi baaxutul ah pendant ce ne da ngay tijjiwaat école encore te tegaat ko ci kawam. Ah, loolu tamit beneen. la question à se poser mooy vraiment. question bi ñu posé benn rek la état bi maanaam wax dëgg fa yàlla moom mi nga xamante ne dañ ko teg pour ñu sécuriser ñu organiser ñu moom mu dem di jël yenn décision yi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla kuy xalaat ku ne xam nga ne lii baaxul tegul ci yoon c'est pas logique c'est pas raisonnable c'est même pas rationnel. wax dëgg fa yàlla non non non qu'on se dise la la vérité gis nga fay foog affaire mu neex ñi. mu naqari ñu c'est l'état qui décide. loolu moom c'est vrai mu neex ñu mu naqari. ñu. l'état c'est personne. l'état c'est léegi léegi léegi c'est-à-dire il un état d'abord. Un état est pour sa nation. Non, un état est là pour sa nation. mais l'état bi ni nga xamante ni mu ngi nii lépp lu mu def depuis corona commencé ba léegi mais ñun gisuñu suñu bopp. Mais l'état n'est personne, c'est toi et moi. non non Papis gis nga loolu laa koy wax loolu sonal boppam la gis nga état bi si jëm boppam moom mooy décider état bu décider que le 2 juin école day tijji mu neex suñu papa mu neex suñu yaay yi mu neex ñu mu nàkkari ñu ñun ñëpp le 2 juin école day tijji donc xam nga ñun lan la ñuy wax xaaral rek mais ma yeggali mais ma yeggali do xam nañ ko mais comprendre nga ñun instant yii nii am nañ droit comme li nga wax état def instant del ñu fii ko xam na ni lii nii état lu mu def début boobu ba léegi comme ni nga ko waxee kenn gisu si boppam ñun xam nañ kenn gisu ñun ñi gisuñu suñu bopp is naa déggum la mais da xool ne ni xam nga xel du yenn waaye xam na lu bopp attan ñun ñëpp xam nañ ni is naa déggum école yi c'est pas c'est du tout normal situation fu mu toll nii ngay léegi di am ay 100 cas diggante 24 heures ngay am ay 5 morts période yu ñu toll nii nii nii yow sa moyen motu ko is naa déggum la nga ne yow da ngay tijji école moo tax Bajib Sàng dafa joxe exemple bu am solo moom mooy gis nga boo demee en France ñoom parents yi seen jëm boppam ñi nga xamante ne dañuy dem jàngi école seen papa yi ñooy téye seen loxo yi est-ce déggum la yóbbu leen ba école ñu ne leen 13h la ñuy wàcc ke 12h euh, euh, midi midi midi midi midi 45 parents yi ñu ngi ci buddi bi di xaar xale yi dañuy génn njàppandal seen loxo mais yow état bi mun nga organiser les élèves dans les classes mais tu peux pas organiser en door des classes donc regroupement parce que ñun ku nekk fii nii jàng nga xam nga yow boo leen jugee classe yéen. accompagne yéen ñi ngeen di àndee yéen seen biir gis nga déglu la doo faale kii am na coronavirus wala amoo kii amul coronavirus donc forcément y aura des regroupement en dehors des classes te loolu état mënu ko organiser donc instant yi ñu toll nii instant déggum la ça saver illogique c'est pas du tout normal école ñu ne dañuy xalaat sax mu tijji le deux gis nga en Afrique bu ñu buggee dégg-dëgg instant yi seen école yi ñuy wax nii nañ ko denc ba keroog ñuy am vaccin tant que loolu amul. tant que loolu amul. tant que loolu amul ah. tant que loolu amul gars bu ñu jéem a sax xalaat naan dañuy tijji école parce que école yi bu ñu ko tijjee moyen de propagation la kese. moyen de propagation la parce que les é mënuñu organiser les élèves loolu c'est pas du tout possible. moo tax waxu ouverture le deux boobu noonu moom état bi si jëm moom bu dee am na bu dee. am nañu ay conseils dëgg dëgg dëgg dëgg il faut qu'ils reviennent à leur décision parce que ça c'est pas du tout normal. état ñaari affaire yi la benn bi mooy ñu wax débat gars yi wax gars yi lu leer ci affaire de vaccin beeg wala artemisia bi gars yi doon wax naan prévention la ak du prévention nan la ñuy def ba jot ci dëgg la wala du dëgg nan la ñuy def pour jot xam nga loolu la ñu war a wax ceeb bi ñu naan mu ngi poor ak mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii ñu fexe na lañ def ba askan bi jot ci. kenn xamul fa la ceeb bi dugg. mais bu dul loolu pour pour te montrer ne mesures yi ñuy jël amul sens ay couvre-feu couvre-feu. bu leen génn à partir de lan lan lan la mun ci feebar bi lan mun nañ tere rassemblement yi jën leen takk leen seen masque def leen li ngeen di def mais nañu bàyyi nit ñi ñu dox seen soxla xam nga li ma la mais yeneen affaire amul sens ceeb yi ceeb yu gars yi nañ ko jox gaa yi comme jënd nañ ko dóor nañ ñu ba jënd ceeb bi nee nañu mu ngi fii mu ngi fii oto yi ñoo koy yóbbu ñi ñoo koy yóbbu wax nañ ba sonn léegi bàyyi nañ leen ñu def lu ko neex nañ fexe ñu askan bi gis ceeb bi doole rek mbirum yi ñuy wax ne dëkk bi dañu jullite dañu nangam sangam dañu nangam sangam mais vraiment la question su fekkente ni dañu jullite quoi ndaxte bu ñu jullite woon li rasulullah digle dinañ ko def mais dëkk bi dafa bëri fen qu'on se dise la vérité il y a trop de mensonges dañuy fenante lu bëri moo ñu sonal ñu waxante dëgg te ñun non kon di la vérité du ma jàkkaarloo muus naa la xoolal kutub yi doo ko mës a gis on appelle chat chat a trop de mensonges dans ce pays la on se qu'on la vérité dañuy tegante main comme ni ko kii ko gars yi di dañu dañuy tegante xel. maa la gën a muus maa la gën a jàng maa la gën a jaar jaar lii maa la teg pion lii maa la teg lii. gis nga loolu ah. moo ñu sonal Babis Babis man loolu loolu nga loolu débat boobu noonu su ma si duggee carrément sax man ah, a damay indi leneen loo xamante ne day génn ak li ma bëgg ñu waxtaan quoi carrément parce que tam boo xoolee beneen affaire bi mooy lan système bi ni mu bindoo la man sama gis-gis am na yoo xamante ne bugguma ko woon sax wax comprendre yàgg nañ ci wax nañ tëj daara mooy xam boo xoolee yeneen émission yu da yu passé yi maa ngi doon wax xam nga di ba di leen jox exemple ci daara bi bi nga xamante ne mu ngi mu ngi nekk Médina baraag yu lakk gaa yi nekk yi Médina mais politique bu ye ñenn ñi bëggoon a def dañuy profité ci affaire boobu noonu si coronavirus bii nii di tas daara yi di jël booy di yóbbu ci ay centre rek ay affaire yooyu tëj daara bugg tijji école tëj jumaa bugg tijji école comprendre nga li mu la bëgg wax li tax nag affaire bi demee nii dafa am benn système boo xamante ne moo fi nekk système bi xam nga mooy lan sa doom amee sept ans dañ lay wax wax wax wax ba yóbbul la ko école mais tey jii gars yi gëm nañ yàlla gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais xam-xam bi est-ce que est-ce que ils sont xam nañ lan diine bi lan moo ko taxawal jàng bi est-ce que am na dëggantaan njaay xam nga tey jumaa yoo dem tey jii paa yi neewuñu fa de booy ndaw yi ñoo fa nekk ñooy fees si jumaa yi ñooy fees si daayira yi ñooy fees si lépp bëgg nañ diine bi bëgg nañ ko pratiquer mais xamuñu nan lañ koy pratiquer parce que xamuñu lan mooy diine bi base bi fondement bi si lan la taxaw xam nga mun nga gis kenn koo xam ne mun na la taril kaamin alxuraan bi mais Faatiha mun la mun la firil lan lay wax du ci du ci coobareem moom du ci coobareem moom mais dañoo teg benn système boo xamante ne depuis boobu tubaab bi ba mu ñëwee ba mu ñëwee Sénégal lan la njëkk a def ba mu ñëwee Ndar lan la fa njëkk a def lan la fa def tasul daara alxuraan yi tuba foofu la rajaxe daara alxuraan yi comme lan la léegi résistance bi amoon jamono boobu noonu xam nga parce que dafa amoon ay. ñoo xamante ne xamoon nañ lan mooy diine bi diine bi seen la taxaw xam ñoo xamante ne ñoom ñoo taxaw xeex affaire boobu noonu mais ñun ñii ñii ñii ñii pour cent si ñun mooy loolu. xam nga li système bi teg suñu kaw mënuñu koo lijjanti. boo defee taxaw seetlu boo defee taxaw seetlu da ngay xamante ne ni seen la Sénégal yëpp parce que xam nga ñun ñëpp ñun dañuy bokk dañuy bokk li nga xamante ne moom mooy idéologie parce que période yi ñu toll nii. période yu muy yu mu toll nii da ngay xool xam ne ni dafa am loo xamante ne moom moo yenuwul maanaam depuis sànq ba léegi gis nga état bi bu bëggee dégg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg période ñu toll nii gis nga déggum la juma juma yi la fekk ni marché yaa ngi dox juma yi dafa war a tijji avec une organisation boo xamante ne ni organisation bi day ànd ak accompagnement gis nga déggum la boobu mooy premier sinon sinon si jëm ba ah population bi ñooy dem ba xamante ne loolu da leen di pour pour dëgëral li ngay wax du jumaa kese de marché bu tijjee jumaa day tijjee école bu tijjee daara alxuraan dañ koy tijji ba pare voilà voilà kon benn benn la loolu la dama doon benn benn ma ne la fi ñu toll nii essient yi déggum la état bi dafa war a xam ne ni essient yi déggum la jumaa yi jumaa yi si jëm boppam heure bi ñu toll nii lii dafa war a tijji même bu dee sax couvre-feu bi day continuer gée gée amul julli amul bu ñu julli gée wala kenn ñëw nodd gée après dem ñu utal ko ay ay ay autorisation genre yooyu noonu loolu mu dem mais jumaa yi moom fi ñu toll nii dafa war a tijji boobu moo nekk premièrement deuxièmement mooy gis nga école yi isinaa déggum la xel yenuwul maanaam isinaa dégg école yi naan day tijji la 2 juin loolu moom loolu moom moom moo na war a nekk dernière dernière dernière dernière solution te marché foofu ñuy tijji fii jotul Sénégal activité yi continuer comme nu mu doon def parce que benn affaire am nga booy xeex dara nga xeex ba sonn sa gir gisoo si résultat xam la boo mi nga xam ne kon li nga xeexee baaxul xam la nga ne stop taxaw xam la léegi nag nga xool léegi yow doxalin bi fan la sooxee parce que tey bi ñuy xool diggante ja xeex bi dès le début ba léegi ne ah amul fenn fi ñu mën taxaw ne on a gagné c'est du gagné ñu quoi xam nga parce que. ñëw waaw. dañ ma comprendre benn affaire comme depuis depuis ñun feebar bu mu duggee suñu dëkk ba léegi par rapport ni mu mel si yeneen dëkk yi essai déggum la léegi yow est-ce que nekkul tamit mesure yi nga xamante ne état bi moom la jël nekkul mesure yooyu noonu moom moo tax feebar bi tollul foofu kon kon kon état bi mesure yi mu jël nii bu ko blâmer. li mu jël dès le départ baaxoon na quoi. loolu laa koy wax quoi. rassemblement yi rek la. soo xoolee mesure yi. bu ñuy wax baax baax benn rek moo ci baax muy rassemblement yi ñu xam la mais à part amul dara li nga xam ne dañ ñaan lii ni ko moytu bu lee lii parce que rassemblement yi benn mooy li ngay wax li ngeen wax sànq boo takkee sa boo solee sa gan sa max ah boo ñëwee lépp li nga xamante ne boo ñibbisee lépp li xam ne war nga ko def sa diggante sa diggante sa diggante feer bu bañ a dugg nga def ko pour man nice ko xam la mais gis nga tey ji jumaa yi xam nga ñoom dañoo foog ne bu ñu téyee jumaa yi peut être dina gën a wàññeeku xam la ñu ne marché yi dañu koy wàññi suñu wàññi heure de heure xam la mais boo xoolee nu mu war a wàññeeku chaque jour da ngay dégg ay mille xam xam nga ak jaay ma mburu maanaam maanaam dafa am yoo xam ne maanaam c'est pas sénégalais xam daf ñuy maanaam maanaam ñuy sonal loolu maanaam xam nga dafa mel ni instant yoruñu xaaj instant yoruñu xaaj de mais dafa mel ni luñ luñ jàng. merci. la France est un pays développé nous sommes un pays pauvre. il faut que ngay xam fi nga yow yaay kan nous sommes un pays pauvre la France est un pays développé la France est un pays où l'internet est à gogo chez nous chez nous chez nous 3G bi rek problème la sakamtuma 4G mais qu'on se dise la vérité arrêtons de copier soyons nous-mêmes. mais nag xam nga problème bi fan la ñëwee problème bi mu problème bi nii ñu naan système bi nii ku am ba am sept ans comme ni nga ko waxee nii dañ école bi ñu dem ba parce que ñi nga xamante ni ñoo war a jël kàddu dëkk bi ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee sànq ne euh, le xalif moo ëpp doole le président ñooñu ñoo war a jël seen kàddu ñoom ñoo war a jël seen responsabilité parce que tu peux pas avoir des millions de gens dans le dos il est ñu nga naan seen la ñu dénk la seen lépp ñooy ñooñ ñooy sonn tey qu'on se dise la vérité dëgg la dañu nekk dëgg boo xam ne gars yi dañuy calculer naa boo waxee lii nii dañu day dal sa gaw mais bu fekkente ni xaqulaay taal moo tax ngay wax doo ragal dara ci parles à cause de Dieu et de la vérité non non qu'on se la vérité dëkk bi nee naa la comme tout à l'heure dafa bëri ay raayante fenn qu'on se dise la vérité al bi la wax sëri ma borom ñi nga xamante ni tey ñu ngi nii yaa ngi dégg ñu ne attaqué nañ xalifa bay convoqué nañ ko mais avant corona di am journal yi da leen di ubbi les pep news pep news yi da leen di ubbi chaque jour lay gis sëriñu daara bi violé na diw sëriñ daara yow si Sénégal yëpp loolu mooy information bi yow donc yow sa subconscient ñu ngi lay préparé ci yenn am information yi yow am na lu lay préparé no dafa nanga dafa am benn guerre psychologique bu am lu ñu bëgg maanaam yow nga nangu ko daan dix ans dañ la koy préparer tey te doo ko yëg non dama lay expliquer rek dama lay expliquer donc donc quand je te parle bu ma def na ay non non non que du ma waxantu non du ma waxantu c'est mbir mi dama lay wax ni góom bi amul ay raay danga koy forootee mu alcool ko ba mu saf waaw c'est quoi ça. benn côté daal xam nga ñun daal si la la ñuy wax daal xam nga coow li coow li daal lenn la marché yi moom buñ ko tijjee dinañ tijji jumaa yi école bi buñ ko tijjee daara alxuraan yi dinañ ko tijji loolu force la. loolu moom loolu moom mënuñu si dara waaw ceeb bi gars yi di wax tamit xam nga ceeb boo xamante ne boobu ba léegi lu nekk wax nañ ko si lu nekk wax nañ ko si ceeb boobu ba léegi kenn gisul benn kilo benn kilo ceeb kenn gisu ko xam nga lan mooy problème gis nga sànq Moussa yaa ngi wax loolu noonu gis nga gis nga ñun suñu état bi dafa am une très mauvaise organisation. parce que parce que parce que xam nga lan moo tax. parce que instant yi ñu toll nii situation yi ñu toll nii déglu mille milliards yi Macky Sall la waxoon avec les 52 milliards yi nga xamante ne moom mooy dem ci denrée alimentaire bi depuis ba nga depuis bañ ko waxee ba léegi ñu ne dañ koy accompagner dañ koy dimbalee feebar bi boobu ba léegi is dégg amul kenn koo xamante ne yow gis nga ko. mu ñëw taxaw ne la man ceeb bi man bénéficié wu naa si boobu ba léegi dégg rek lañ ci am dégg rek lañ ci am moo tax raison pour laquelle instant yi dañoo war a ana suñu ceeb ana suñu ceeb ceeb boo xamante ne ay dégg kese kese kese kese kese nga siy am mais loolu c'est grave te boobu ba léegi ngay dégg gars yi di wax plan de riposte ana suñu ceeb nañu waxtaan suñu dëgg dëgg nag l'état c'est organisation ceeb bi moom ceeb bi moom benn <laughs> c'est une organisation l'état c'est une organisation non déglu déglu maa la déglu yoo xamante ne ñun mënuñ koo comprendre ndaxte ñun déjà defuñ benn étude boo xamante ne bu ñu wane ne ceeb bi jaar na fii loolu bi jaar na dañoo dégg ne ne ñu ngi commencé distribuer ay ceeb te yéen seen seen biir bopp man mun ngeen mun ngeen waat ne mun musoo leen seetaan ci télé boo xamante ne am nañ ay distribution de ceeb yoo xamante ne état bi organisé na ko léegi nag problème moom mooy problème moom mooy problème moom mooy problème moom xam ne xam ne lépp loo gis lu nekk rek commencement da cee baax dangay commencé si tey suba gannaaw suba nga commencé si leneen ak leneen mais tey jii nii nii y a des y a yoo xamante ne état bi joxe na ko joxe na ko ay nit ñoom ñu ils sont ñu gérer ko ñu exécuté ko ñu gérer ko ñu exécuté ko te et puis yow da nga ne cinquante et quelques milliards du cinquante et quelques cinquante soixante neuf la xam ne bénéfice boo xamante euh, Sénégal moom moo ko génne état du Sénégal moo ko génne pour jagleel jagleel ko la population te ñoom da am na ñoo xamante ne dañ cee war a jot am na ñoo xamante ne waruñ war a préciser bu baax du a jot jot ceeb bi am na ñoo xamante ne cee jot ñoo xamante ne état bi ciblé na ñoo xam ne ne ñii nii ñoom ñoo war a bénéficier ci ceeb bi nu mu doonee ci ceeb bi noonu la doonee ci noonu la doonee ci courant bi noonu la doonee ci leneen ak neneen par conséquent am na ñoo xamante organisation la laaj te jël lépp na bi jël ko jox jox ko kii xam na état état day jël ay décision état ay jël ay décision mais am na commission boo xamante ku yéen di waroon wax d' lu ñu xeex moom mooy commission bi dafa waroon taxaw commission boo xamante moom mooy moom kii bi moom mooy piloté kii marché bi moom mooy joxe ay kii moom mooy joxe ñan la war a jox ñan ñan war a doxal mbir mi noonu la waroon jox mais yéen ngeen bàyyi mu jox ko ministre da ngeen di critiquer loolu day poser problème. Elhadj ñu gën Elhadj ministre lañ dañ ko ne ordonnance la ñuy bindal ñun ñu ko joxoon bu ko joxoon ba muy taxaw ne mille milliards yi waru ministre de gars yi ñoo ket borom alal ñoo ket joxe seen xaaj bu mot mille milliards moomu ko de gars yi ñoo ko joxal ne ko jox ko gars yi xam nga bu xaalis état de population bi ñoo dajale les bons volontaires ñoo génnee déglu rek la rek joxe kon moom bu ko joxee ministre bi koy piloté bu ko du piloté si ñoo nekkul si ñoom ñu xam ne si si kala nekk si moom. les forces privées bi. et Sénégal lu muy rëy rëy rëy une semaine une semaine war nga daj Sénégal ku yor oto une semaine Sénégal région yi mën nga fa def une semaine rawatina yow yow nga yor ay oto yor ay distributeur nga taxaw naa ñu non ah. en ah, ñu ngi ko jox ak pilote ak ñun fi ñu nekk si pilote ñu nekk noonu ñu nekk pilote ñu. ni wax ne noonu la yombee da jël benn décision ba xam ne amul côté assemblée nationale lii dafa yomb état xam ni xam ni priorité y a tous les yoo xamante ne dafa taxaw ci suñu suñu loxo état da ko war a gérer même d'accord naa ngeen ngeen critiquer ko naa mais soo leen di dara il faut avoir les des mesures yoo xamante fiable yoo xamante ne mën nga koo critiquer mais mais bés boo taxawee ne yow déjà yaa ngi critiquer te yow amoo base boo xamante ne da ngay critiquer bu boobaa day poser problème tey ji ah, tey ji li nga waroon critiquer li nga waroon critiquer moom mooy pourquoi commission bi mettuñ ko en place pourquoi commission bi commission boo xamante moom moo war a plutôt de piloter kii bi lu tax commission boobu taxaw mais loolu mais loolu mais mais loolu yéen yow taxaw ngeen taxaw ngeen am na ñoo xamante ne jusqu'à présent gars yi piloté wuñ commission bi yow gars yi gars yi ngi joxe gars yi jusqu'à présent mu am na ñeen ñoo xamante ne jox nañ leen am na ñoo xamante ne jox nañ leen am na ñoo xamante ne joxuñ leen y' y' a des personnes yoo xamante ne ñoom ñoo ñoom lañ ciblé ñoom la ñu war a jox mais yow est-ce que ci nga bokk. est-ce que yow ci nga bokk. est-ce que yow ci nga bokk. mais y' a des personnes yoo xam ne moom. non dama la yow da nga ne début boobu ba léegi ñu ngi joxe. am na lu ngeen di offert yoo xamante ne pour ngeen critiquer ko day jaar yoon mais dañu critiquer yoo xamante ne où sont les si où sont les l'état c'est une organisation soo leen laaj da ngeen laaj yoo xamante ne les ministres de la santé. waaw tamit tamit tamit organisation la ñuy laaj état ñun amuñu li ñuy laaj état xam li ñu koy laaj ah moom mooy pouvoir état ordonnance lay bind moom état lii amul lu ñuy voté assemblée nationale amul lu ñuy voté seen biir amul lan ñi nga tey les bons volontés ñi gën ñi nga xam te ne genre di bi ñi nga ne dañuy góorgóorlu dañoo jéjéeg ñu ñu woote joxe moo xam ñu lañ koy xaar si joxeem lañ koy xaar ñun xaar ñu si moom ay ay bureau de pilotage ak ay bureau de xaar ñu si moom loolu suñu yoon nekkul si moom si loolu day xaar bilan daal boobu su kaa bi bilan mu tawee si li bilan mu tawee si plus de deux mois benn fee nekk si biir dëkk yaa ñaata dese ñaata dese nga am ñaata dese nga am nga xaar bilan ñaata dese nga am ñaata dix-neuf dese dix-neuf dese léeg-léeg nga su kaa président nga toog di xaar ay ay ay bilan du ay bilan ceeb yéen yéen ay bilan ceeb ngeen ngeen lijjanti non quand même du xool xool leen baax na fu mu toll nii xam nga lan lañ soxla fu mu toll nii lan lañ soxla moom mooy ñoo xamante ne ni ñu ñu daan coronavirus bii nii moom lañ moom moom moom mooy suñu principal préoccupation mais mais mais du mais du naan ay ñaata ceeb lañ kii ay nangam sa poosagul tey jii nii soo leen soo leen bëggee jël débat bi tamit nga jël ko yóbbu ko ci ay ay ay ñaata ceeb ak ñaata kii tamit day day posé problème canaliser débat bi benn affaire rek laa lay fàttali El ñun dañoo woon benn problème dañ toog fii suñu dëkk ñuy dégg benn feebar boo xamante ne mu ngi Chine di fa rey ay nit dem France di fa rey ay nit dem Italie di fa rey ay nit ñu toog di xulle ba affaire bi dugg suñu biir dëkk xam nga prip mu woote teg laaj xaalis génnee xaalis teg woo bon bonne volonté ku nekk génnee sa xaalis moment bi ñuy concentré wu ci xeex xaalis bi war a def communication wu xeex xaalis moom moo ñu ñëw divertir indil ñu ay ceeb problème mu feebar lañ doon xeex feebar amuñu woon ñu man lañ ko doon wax fii benn jour man nañ leen ceeb bi du priorité moment bi ñu waree moment ceeb bi du moment bi ma koy wax. daan corona mooy priorité. voilà léegi nag léegi nag moom moom ci boppam moom ci boppam moom moo tourné affaire bi jël ceeb bi def ko priorité. indi ci débat bu dul jeex ba nga xamante ne sensibilisation bi war a am si dëggantaan njaay amul population bi ñii. population bi nekk ci suuf xam nañ ne daal corona benn feebar la bu jóge Chine day wàlle point loolu lañ ci xam ñu si dara. ma am lu ma leeral foofu lu ma laay leeral foofu lu ma laay leeral foofu lu ma priorité. voilà la may si non si affaire euh, nu mu tudd jàppale ma si affaire médecine bi ah. 63 milliards 63 milliards 64 milliards la. waaw ah, 64 milliards 64 milliards la ñuy jël injecté ko sur sur domaine. domaine santé waaw léegi domaine boobu nag. même même même domaine santé ñu ngi kaas. Eh, wax nañu ci coronavirus bi moo gën leen wax mbirum ceeb. ma ne même domaine santé bi ñu ngi kaas. suñu ñu ñu ñu ñu ñu waxuñu ceeb bi ñu waxuñu yi si état ci la bokk état mu doon génne xaalis joxe kan dafa génne jox xaalis joxeem ci sa yow da xamante ni moom mooy moom moom dañ ko jël teg ko moom mooy budget état yéen li wax nii force covid moom ngeen di jéem nii loolu loolu ça n'a rien avec mille milliards yi ñu ñu kii mille milliards yi déjà ficelé moom mooy mu mille am am na am na 69 milliards yoo xamante ko war a jox dañu war ay dund dañu war a ay dund pour kii ko yéen xam ne la ngeen war a wax léegi xam ne la ngeen war a wax d'abord bilan bi ngeen war bi dafa teel am na bilan yoo xamante ne bilan bi dafa teel tey jii nii daan corona moom moom mooy suñu priorité moom mooy priorité bi la corona bi nii moom mooy suñu priorité non quand dixième personne ñu ngi dee boobu lañ bu leen divertir bu leen divertir gars yi bu leen divertir gars yi ma ne divertir ñu kenn Ziguinchor euh, salle rémanal salle basse amu fa Moussa même te ñu jox leen 63 milliards xaw ma 64 milliards ñu wax la daan corona daan corona mooy priorité d'accord et daan daan mooy priorité d'accord nañ daan corona mais daan corona bi ngay daan corona nit ki balaa nga kaa daan kii day jàpp loxo kii jàpp tànk xam la yow yaa ne nit ñi toog leen seen kër bu leen liggéey liggéey yaa ko fi doon défendre bii passé ñu nekk seen dëkk xam nga ma la ñiy xiif war a lekk nga war a ñëw liggéey si xam nga nga tëj leen seen biir kër na leen toog leen ñu toog seen kër nga indi leen ay camion ceeb na dañ leen koy séddale parce que yow boo demee ba jënd ceeb rek yow da yow tu te rends compte ne sa askan am na ñoo xamante ne dañoo sonn dem nañ ba amuñu ñu lekk léegi yow yow yow yow ku xiif nga war a gaaw si ay mbiram jox ko lu mu lekk vite fait ah yow boobu ba léegi ça fait mois deux mois pour séddale ceeb fii Sénégal. un mois un presque deux mois un mois presque deux mois. 4 avril la la la Macky Sall la jël kii bi la la jël décision. 4 avril la ko jël 15 jours. 4 avril ba ba ba tey jii nii. ça fait 4 avril que moment demee c'est presque un mois et quelques jours. waaw même tamit am na yenn yoo xamante ne tamit man mënoo leen mënoon ma wax mënut a gaaw gaaw boo xamante ne boo xam ne ne nit ñu jël yenn décisions yi. yow yow déjà yow yow déjà marché bi kañ lañ ko gagné. mois de mois d'avril la mois d'avril ay ay 15 15 avril ay 16 avril moom moom lañ gagné marché bi gars yi ñu commencé distribuer ngeen bëgg gars yi jot te ceeb bi te ceeb bi am na ñoo xamante ne xoolal moo la benn affaire bàyyi bi Elage xoolal gis nga Moussa foo ngeen comprendre benn affaire gis nga xoolal foo ngeen comprendre benn affaire c'est trop tôt quand même Elage ah, xoolal déglul gis nga xoolal ñun il ne faut pas défendre l'indéfendable gis gis nga gis nga instant situation yi ñu toll nii instant yi dégg état bi si jëm boobu Elhadj li ngay wax c'est pas nekkul c'est pas trop tôt à ce que ñun ñu def bilan ñun nekkul ñun on cherche pas à faire un bilan essient déggul la ñu on dit la vérité comprendre état bi il nous avait promis quelque chose yaa ngi dégg mu ne depuis depuis depuis xaw ma la ñaata 63 60 xaw ma ñaata milliards yoo xamante ne dañ ko injecté sur li nga xamante ne wàllum denrée alimentaire yow ba nga déggee ñu ne la li lu jëm si wàllum jënd ceeb bi jënd nañ ko ba pare ak léegi def na mois mais boobu ba léegi amul ku am donc mais donc il est normal à ce que ñu taxaw ne ana suñu ceeb parce que am na yenn ñoo xamante ne instant yi déggum la dunduñu am na ñoo xamante ne comme li nga wax instant yi forañ lépp lañ tëj am na ñoo xamante ne ni dëkk yi lañ doon jógee fii lañ doon liggéeyee ñu ngi seen dëkk yi toog yow yaa ko doon défendre fii am na ñoo xamante ne instant yi lu ñu lekk sax amuñu ko état bi mu ne yéen dama leen di accompagner mais accompagnement boo xamante ne da ngay bàyyi ba nit ñi dee ba pare nga ne nag leen di accompagner loolu munul ne. ceeb bi de xanaa suñu dëj bi lañ ko bëgg a jël. instant yii nii nii ñu toll nii depuis boobu ba ñu ne yow ceeb bi ñu mu ngi à disposition mu ngi en disposition xoolal depuis boobu ba amul benn benn benn benn benn benn boo xamante ne ni posé nañ ko donc ça pose problème. raison pour laquelle instant yi ne xam nga slogan bi lan la ana suñu ceeb. a marre. waaw slogan bi loolu la de suñu ceeb ak comprendre yow sa akulaay taala ba nga yow boobu ba léegi mosoo gis ko am ceeb ne jox nañ ko dégg réunion si réunion état bu gën a mar organisé ah yow yow xanaa ñun ñi sax bu ñu bu ñu bu ñu yoroon wàllu organisation bi séddale nañ ceeb yi bu yàgg. kon yow vaccin yi bu ñëwoon. nan nan noo koy noo koy noo koy noo koy kiiwee. vaccin yi vaccin yi bu ñëwoon nii ko doon organisé. daal war a jot ceeb de. mais c' est trop tôt pour gars yi ngeen mën a ci tey juger juger mesure mesure bi ndax ceeb yegg nañ ci ñoom wala yeggul ci ñoom. na yéen ñoo xamante xam na xam na waxtaan su waxtaan balaa muy neex tamit ñu am mën a a déggante mais su ma wax tamit ngeen di wax tamit balaa fee neex quoi. ñu nekkul dañ ne état bi dafa war a séddale ceeb bi par la force dañ ne la état bi si jëm boppam moom moo ne man li may wax. mais tey jii nii ça fait un mois ba ñuy jël marché bi marché bañ koy déclaré ñu ngi ko ñu ngi jël ci mois mi mi avril. suñ ci mi abri yi ngeen bëgg gars jël ceeb bi joxe ko conso man d'accord naa ñu critique ko mais critique yoo xamante yoo xamante ceeb bi jusqu'à présent demee ba maire su demee ba maire ne comme que état lu muy joxe moom comme que doyut moom am na moom day am na maire am na am na am na yenn ceeb yoo xamante ne ko su ko defee hélas su ko defee ñoom hélas il confond complètement les choses xoolal xam nga hélas lan lay jaawale Moussa meema ngir yàlla xoolal maa la ko ñaan xoolal ñaari affaire lay jaawale xam nga muy lan moom mooy premièrement gis nga ñun nekkuñu dañuy fustiger l' état parce que isaay déggum la ñun xamaguñu état lu muy def wala lu mu dul def ñun lu ñu ciy wax yëpp déglu rek ñun lu ñu ciy wax yëpp c' est pas trop tôt parce que état si yëm boppam moom moo génn déclaré ne lépp li nga xamante ne dem na si wàllum ceeb ñun boucler nañ ko ndax ñun instant yi nii ceeb bi motal nañ ko ba pare premièrement deuxièmement moom mooy essayer ay déggum lan deuxièmement xam nga moom mooy lan moom mooy li ngay wax kanaan eh, ay ay bi mairie bi mairie yi instant yi dañ ne état bi ñoom parce que wóorul ni seen bos yi day mot mairie yi ñoom ñoo ne ñoom li nga xamante ne ñoom loolu lañu am ñoom wóorul mu mot moo tax ah dañuy xaar état bi boobu ba léegi ñoom li ñu yor mënuñu koo joxee comprendre donc instant yi fu ñu toll nii état bi moom moo deful li nga xamante ne moom mooy devoiram si wàllum wàllum wàllum distribution ceeb yi instant ku nekk waroon na sax lekk ceebam ba mu rees instant yi ñu toll nii. di xaar deuxième tour di xaar deuxième a moo tax ah, dama lay wax dëgg dëgg de liberté six distribué nañ ceeb ñoom xaaruñu état bat xaaru état barki de mooy jaay yéen ngi gis maire Medina bi Bamba Fall xaaru état yaa ma dégg parce que ñëpp xam nañu état dafa yéex comme am la parce que yéexaay mu def nag moo dul yoon moo tax gars yi xaaruñu xaaratuñ ko yaa may dégg moo tax diib la même chose am diib euh, xool lu def bii gars yi yaa may dégg am na benn gars bu tudd Omar Samb bu nekk Jurbel la parce que ku nekk instant xaaratoo état parce que état dañ ko xaar ba ñu maar lu mu yor nag moomu ko ñun ñoo ko moom moo tax ñu koy laaj xam a ñee bu leen neexoon ay di dib bu ko neexoon tey kenn du ko laaj yaa dégg mais ki xamante ne da nga fi yor da nga xamante ne askan yi ko moom askan nga dana koy laaj boo ko joxul dala koy laaj nañ jox nit ñi li ñu moom ñu bàyyi di ko bitee naan ay dañuy ay ay ay comité de pilotage ak xam nga xam ñun lijjanti wu ñu loolu waaw ñu bàyyi seen caaxaan yi. waaw man dina pour ñu teel na pour ñoo xamante ne ni ñu laajte mbirum ceeb bi mais état yi mu ngi def ay effort mais nañ ko nañ ko nañ ko ko bàyyil quoi léegi nag lu ñu waroon def ñun dañoo faussé dañoo faussé débat bi depuis le début. léegi dañoo waroon xeex depuis le début mais xeexuñ depuis le début dañoo bàyyi ba affaire bi ne këtt na jonn ñu commencé naa la dañuy xeex su boobaa li ngay gay li nga waroon gagné su boobaa day day problème man tey jii nii mbalum jumaa ji moom wax naa ci wax naa ni jumaa ji moom dafa si obligatoire ñu tijj ko mais dañoo concertation avec les imams les oulémas yoo xamante ni chefs religieux ñu jël ay mesures yoo xamante yu leer nañ su ko defee ñëpp mun mun cee d'accord mais tey jii nii bés bu buggee jël dara ñu imposer ko ci ci diine yi te xam nañ ne euh, fii nii pouvoir euh, religieux dafa am kon dafay pose problème kon nag nañu xool euh, le juste mesure pour ñu mun cee génn. analee moom essient déggum la moom mooy li ma doon wax sànq rek bon on cherche pas à défendre leen il ne faut pas défendre l'indéfendable quoi parce que essants yi ñu toll nii essient dégg aide alimentaire yi dafa waroon nekk à la disposition de la population parce que instant yi nii depuis loolu bu yàgg la état bu mu ko waxee ak léegi essient déggum la waroon na fekk ni loolu nekkatul débat ndax loolu def nañ ko bu bu bu yàgg xanaa yow boo amoon une très bonne organisation sax dans les quartiers xam nga loolu loolu du débat loolu dañ ko war a mettre à la disposition du du du peuple mu jeex dépp boobu ba léegi ñu siy wax dépp boobu ba léegi mu siy wax ana suñu ceeb dépp boobu ba léegi mais instant yi nii ba léegi gisuñu dara deuxièmement moom mooy gis nga jumaa yi ak ak jàkka yi essient déggum la da ngay xool loo xamante ne ni ça s'avère illogique munoo marché yi di tijji dépp boobu ba léegi regroupement yi nga xamante ne moom am si marché yi nga a yow jumaa yi da koy tëj état bi lenn kese lay def day jéem a organiser les choses ut benn planning boo xamante ne da koy tegal à ce que les jumaa ñu fonctionner noonu bu dee jumaa yi bañ nañ fonctionner noonu mu delluwaat à sa mu revenir à sa décision mais mayoo benn chance jumaa yi pour ñu ñu xool nag dinañ organiser wala du ñu organiser wu instant yi yi dañ ko war a tijji mu accompagne leen ak ay mesure mesure yoo xamante ne da koy teg yoo xamante ne organisation rek lay laaj parce que jumaa yi boo leen organisé woo ñoom dinañ organisé woo nag jumaa yi déjà ils sont ñoom am nañ ay président juma am nañ imam 1 am nañ président bi trésorier ñoom dañuy am lépp donc jumaa yi boo leen waxee ni nii lay doxee nii lay doxee bu ko neexee bu ne soobee yàlla loolu dina ko doxee donc yoon la ñu tijji ñu yi ouverture école le juin bi loolu du idée c'est pas une très bonne idée man su doon sama sago wax dëgg loolu loolu xalaatu xalaat xalaatu xalaatu léegi léegi nii sax voilà man loolu laa amoon loo xamante ne war naa ko si te c'est pour ñu continuer respecte li nga xamante ne moom mooy les mesures barrières buñ ci taay buñ ci sonn gars yi nañuy sol seen masque bu ñuy génn ku nekk na jàpp ni moroomam dafa am booy dugg sa biir kër na nga raxasu saabu ak ak ak sa loxoy set boo amul saabu nga utiliser nga xamante ne moom mooy les moom mooy gel antiseptique ñuy respecter mesure un mètre yi yooyu yëpp li nga xamante ne ni daal essayé déggum la état bi. waaw man moom li may wax rek lenn la. comprendre comme li nga wax la léegi léegi il faut pas défendre défendre l'indéfendable quoi comprendre li mu la wax su fekkente ne ñun xeex xeex bi ñu doon xeex leen na la feebar la woon comprendre li mu la bëgg wax nga ne nit ñi toog leen seen kër ñu bëri doon liggéeyee fii ñu nangu dem seen dëkk yi toog fa parce que dañ jàppoon ne bu ñu toogee foofu ndimbal li état bi war a indi dinañ ci jot waaye boobu ba léegi ñoom ñu ngi toog seen kër yi ñëpp xam nañ ni xiif mooy noonu doomu aadama numéro un li xiif di def bi du ko def. comprendre nit ñi soxla ko nga nekk foofu di benn bennal boobu ba léegi normalement comme ni nga ko wax bu fekkoonte ne dëgg la si ñoom heure bi séddale nañ ko ba ñu ci war a jot jot ko bay xaar ci topp xam nga mais defuñu ko xam nga mais nag ñoom la rek quoi xam nga beneen bi mooy jumaa yi jumaa yi moom cool yi moom garaaw ñoom nañ bu ñu buggee jàmm nañ ko teel a organiser ñu teel ko organiser accompagner nit ñi pour ñu dem julli ji parce que ñoom ba ñuy tëj jumaa yi ah demuñu gis association des imams ak des ulama ak des kërëb kërëb jàppal bàyyi nangam sangam dañoo jékki-jékki tëj seen jumaa tëj seen église comprendre na gis nga ni ñu jékki-jékkee tëj seen jumaa ak seen église période bii nii nii nii nii may wax ak yow bu gars yi jéemul organiser nit ñi ñu julli nit ñi su boobaa dinañ fipp génn jullil seen bopp bàyyi foos te bu li ñuy bañ dinañ ko am kon bu yeboo nañu conscience loolu ñu teel a ubbi jumaa yi comme ñoom ñu ngi julli ju ñu ngi tijji jumaa ñu ngi tijji marché yi comprendre la bu ñu ti marché yi tamit école yi tamit bu ñu tijjiwee école yi daara alxuraan nañ ko tijji slogan bi lenn la suñu tijji leen suñu jumaa jox leen suñu ceeb waaw waaw asalaamaaleykum wa seen clic yéen ñi abonné gul gaaw leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf